ngi génn ci làmmiñu xale yi parce que léegi li ma doon wax ci wàllu pureté yéen sama auditoire tey dafa pur maa ngi ci sant yàlla bu wér ndax nag euh, message bi pour mu mën a jàll ci xeeti nopp la dugg ndax nag dañu wax ne jàngal mag dafa mel ne rek nga bind ci kaw ndox booy teggi sa loxo rek muy raaf jàngal xale nag boo ko defee mi ngi mel na nga gravé ko ci roc sur la pierre nga nga yatt ko bu ko defee kooku mille ans mën na ko fa def du bouger moo tax Euh, lii ñuy def nii lii association bi liggéey nii tey sax man yaakaar naa ne ñoom xamuñu ko yaakaar naa ne dañoo def seen yéene rek voilà li ma doon wax ni léegi ci yéene mooy laal action yi yaakaar naa ne seen yéene moo laal action bi action bi kawe na kenn xamul fu muy mën a yegg kenn xamul fu muy mën a toll kon ñoo leen di ñaanal ngeen réussir ko. léegi euh, foog ci àddina bi nit ñi dañ ciy def ay alal yu bëri maanaam milliards yi ñuy investir ci foog ci àddina bi. milliards yooyu euh, mënoon na dem feneen fu gën a am njëriñ ah am na ñoo xam ne xiif a ngi leen di rey am na ñoo xam ne ñu ngi rafle am ñoo xam ne ñu ngi feebar bëgg faju mënuñu ko milliards yi ñuy yóbbu ci pom yi mu bëri dafa mel ne ko foo rek lañ jël rek teg ci kaw lépp ndeke euh, waxuma nag ay loi waxuma nag affaire loisir yi waxuma loolu ndax waxuma itam xeeti tàggat yaram sport waxuma loolu mais euh, PAMI ci kaw laay waxee mooy fi nga xam dañ koy dépenser ay milliards benn takkusaan rek en quelques minutes nga am cent millions loolu vraiment c'est hallucinant loolu à la limite mooy jëlee ñëpp nit ñi xale góor bu taxaw nga jëmee ko fa sa doom it nga ko ci xiir nag day jar sax koy wutal ay saafara muy diw bu loolu yëpp pour mu dem pour mu jàll ci loolu ah léegi nag euh, xaw mel na lu lu ko gannaawal foo moomu dana waral ñu citer le parmi les intelligents ndax intelligence loolu la intelligence mooy yow sa temps nga koy bañ a euh, foowee di ko bañ a utiliser ci ay yu ñàkk fayda yoo xam ne du la indil benn njëriñ ndax nag ki la jox temps boobu jox la espace boobu ëllëgee dina la laaj sama temps boobu ma la joxoon sama seconde boobu ma la accordé woon nga xam ne mënoon naa wala moo jox la tawat joo xam ne doo tal leneen dina la laaj sama seconde boobu naka nga ko utiliser bu fekkee ci ay caaxaan nga ko utiliser tu vas le regretter mooy li ma doon wax nii léegi rek jàpp la dem euh, euh, troqué ko ak leer boo léegi da nga koy rëccu képp koo xam ne yaa ngi wut dara di ko sàkku te taay woo ca bu yàggee da ko mën a di ko mën a am dégg ngeen képp koo xam ne yaa ngi wut dara te taay woo ca taay yi ca mooy nga dem ba yàgg nga mel ku waaw man gis naa koo xam ne euh, ba muy am baccalauréat daanaka fekk na boobu maire dëkk dem na ba nekk maire nga xam ni mag la sama daanaka rek xam naa li ma koy magee tuuti la mu dooree am parce que temps boobu yëpp moom mi ngi doon baccalauréat bi rek ci bopp bi yàlla def na réussir ko ca jamono ji mu ko war a mais taxul mu bàyyi dafa kon ne di def ay cours di jàng di jàng di jàng mais ba dem ba ñu fal sax ay ndomba tànk mu dooree def bi di am baccalauréat dooree

yow kii def la nangam def la nangam nga dem di jubóog moom waaye mooy nit ñi ñoo ñàkk bëgg jàmm nag ah yow ñii xuloo wala ñi seytaane boole na leen ñu xuloo ba après ñu gindiku mën a tuub lañu defoon après jéglu seen borom léegi yow nga bëgg kut ko kut ñoom ñu continuer loolu ñu nekk noonu fitna jooju ñu nekk noonu yàlla ni nag jaar rek ci lamiñ seen suñ suñu yonent sallallahu alayhi wasallam ne képp ku ko yee fitna fekk ko muy nelaw nee na bu boobaa boo ñëwee di ko rëcc

hmm? donc deug dëgg pusala bu réer rek ku nek mën nako ko niko mak ko mag non for noonu la ko xale mënee kon sér yi ma doon bëgg wër wër naa ko inculqué leen loolu maanaam ngeen transmettre message parce que yéen yéenay message yéenay euh, intermédiaire entre euh, tey jii cérémonie bi ak nga xam ne ñoo nekk classe yi te j'espère que li ngeen ko def bu baax a baax j'espère que aussi am na bu baax a baax li ngeen jàpp ci li nga xam ne mooy cérémonie bi ñu doon def ñu ngi leen di remercier bu baax a baax cher professeur ñu ngi leen di remercier yéen tam bu baax a baax a baax ndax heure bi ku ne xam ne ne waroon ngeen wàcc dem seen kër yi mais da ngeen a bàyyi yépp pour retrouvailles loolu tamit ñu ngi leen fay di remercier waat bu baax rek euh, euh, les membres de l'association les retrouvailles man maa jiite li ñuy wax euh, association les retrouvailles et mu nek kuréel go xamanteni ni mom moy les anciens élèves du CM euh mom lañ fi téwal tay wa li tax ñu choisir thème bi parce que gis nañ ni bo xolé éducation bi légui mi ngi commencer vraiment di am ay tolof tolof yu bëree bëri et surtout si ndaw ni gis nañ ni vraiment enseignement bi sooxe na mais aussi tamit yar gi tamit sooxe na loolu moo ñu ni ñun comme que ñun euh, yalla def na fi lañu jangé et que le avons ñun aussi tamit vraiment ñu ngi gorlu vraiment di défar suñu jikko di gorlu di jema tegu yoon ñu ni euh, nga xamanteni ni jot nañ ko am partager vraiment éducation mais en même temps aussi sur les valeurs parce que comme li wax vraiment la dégradation des mœurs mi ngi jël ampleur mi ngi jël ampleur bu et nit ñi ñu ngi jël li nga xamante ne nii nekkul li nga xamante ni moom mooy dëgg di ko jël di ko teg ci kaw et que loolu vraiment ñun war ñu toog di ko seetaan dañ ne en tant que ay jeunes war nañ mën a xool nan la ñu mën a def ba mën a sensibiliser suñuy raq suñuy jarbaat si loolu pour que ëllëg ñoom ñu mën a am taxawaay bu rafet nekk de véritables citoyens qui seron capables de participer au développement de du pays. waaw en fait euh, en ce moment boo xoolee nous comptons sur nos propres ressources et que moyens yi ñun ñooy cotiser. ñun ñooy cotiser et pour mon a def suñuy activité parce que en fait comme li ñuy wax n'est na si fekk loxol borom man gëw ma ñu top dem indi dem uti ay partenaire pour am xaalis pour def ay ay mais d'abord abord ñun de façon vraiment volontaire et bénévole ñun ñoo njëkk engagé wu pour col nan la ñuy jëndee ay carte de membre pour next associé association bi mais aussi nan la de faire ay cotisation pour mën a mëne activité te depuis boobu ba léegi yàlla mu ngi ñu si suturaal ba ñuy départ dañoo partagé ay valeurs bi si njëkk mooy la solidarité beneen bi si topp moom mooy la reconnaissance ku la defal dara bul soxor wax ko beneen bi si topp c'est respect respecte sa bopp respecte ñeneen nii beneen bi c'est la patience lu ñuy def yàqamti wuñ ci dara bu ñu seyoon tey école bi nekk ay étage mais loolu ñun yàqamti dara yéene lañ ci am mais dañuy def lu ñu mën après ñeneen ñi bu ñu ñëwee aussi tamit def li nga xamante ne nii moom la ñu moom la ñu mën moyens yi daal en grosso modo foofu la jógee amul benn partenaire bu nekk suñu ginnaaw man maa jël sama dërëm diw jël jël dërëmam ñaar dërëmam ñu boole après ñu mën a def lii boo xoolee réalisation yi école ku nekk xam na ni bu tëjee classe yi dañuy poussière école bi dafay salte ba école di tëj ñu ñoo volontaire ñëw meeku nettoyé école ba mu set wicc euh, garab yi ngeen gis ni ñu ñoo ko peinture wàccee fi kaamil loolu ñun def nañ ko si vraiment euh, si école bi beneen bistop topp moom mooy gis na ne suñuy xale yi xale yi ndaw yi des fois dañuy soxla di génn mais des fois am na si ñoom seen i parents amuñu ay moyens ñu regrouper xale yi yóbbu leen pour ñu def une sortie pédagogique parc an pour mën a visiter te aussi tamit euh, boo xoolee suñu biir tamit ñoo ngi jàppalante pour dimbali ñi nga xamante ne nii amuñu vraiment ay moyens parce que ñëpp yemuñu doole doole yemul am na si ñoo xamante ne ay jàngalekat lañ am na si ñoom am nañ liggéey mais am na ñoom amuñu liggéey loolu ñu ngi siy jàppalante suñu biir par rapport aux moom yaatu na bëri na torop bi si njëkk te mu soxal ñu torop mooy que ni ñun ba ñuy jàngee ci école bi bu ñu musaan génn daaw ñu am fu ñu toog te ba léegi loolu moo am ci école bi moo tax bëgg nañ fi def ay bancs publics yoo xamante ne nii vraiment xale yi bu ñu génnee dinañu mën a am fu ñuy toog te loolu su boobaa éco-brique lay nekk parce que dañ leen di sensibiliser ci côté récupération des déchets loolu la ñuy utiliser après def ci ay ban éco-brique yoo xam ne ñoom dinañ ci toog xam ne lii ñoom ñoo ko ramasser ba pare toog ci bi ci bëgg nañ jàppale école bi vraiment ci matériel moy que def la de telle sorte que vraiment salle informatique bi bu ñu ay ordinateur ñu def ko fa am fa ay imprimante mais benen bi nga xamné dafa am solo c'est concernant vraiment la sensibilisation des enfants tout à l'heure man ko doon wax Baye eliman maniko ñun ñogi nek fi di bâche di yëkk di saisi xalé tant que waxo len ka len jappalé ñu duñ la jappalé te ñun temps yi ñuy nekk xale suñu musaan gis suñu mag ñi di def dara dañuy ñëw jappalé len sans ñu woñu et que lolu ça montre nettement le niveau de dégradation des mœurs kon donc kon war nañ mën a defaraat jikko yi war nañ mën a xoolaat jikko yi bu baax a baax pour ñu mën a jëm ci kanam Sénégal nag sunu Sénégal la seem jàmm gën sunu seem la ñu ñëw mën a joxante loxo mu dëggu si xol yi ñu def ko te yàlla rek a tax ba ñuy def lii gëmuñu woon ni sax war na mën a nekk mais dañu xalaat ni jël benn tàndarma jox ko kenn ku woor ba ngoon tiyaaba bi si nekk nu mu toll saqantumaa na nga jël plus de cent personnes jox leen ay ndogu ay ndogu yu baax ñu ngi remercier waat ñëpp di jaajëfal ñëpp di jaajëfal waa BIC di jaajëfal waa Pikine euh, vraiment Pikine TV di jaajëfal Baye Elimane di jaajëfal waa école bi di jaajëfal vraiment waa retrouvailles yëpp quoi et aussi tamit les membres qui sont au niveau international euh, déjà je prie sur la mémoire de Mohamed Fallou Sen. Euh, pour plusieurs raisons que je vais peut-être taire ici mais dans ma communication tout de suite quand j'ai quand j'ai parlé de de la quête du savoir j'ai dit que qu'au Sénégal par exemple ce que je vois au Sénégal, je ne l'ai pas vu en Amérique. En Amérique, je n'ai pas vu de bourse pour les étudiants. Des bourses pour des étudiants. Dans les universités que j'ai fréquentées, UCLA de Los Angeles, euh, Boston University où se trouvent mes bagages, euh, Craner Art Museum, c'est Illinois. Euh, donc, c'est des grandes universités où des, sommités américains sont, des américaines sont sorties. Donc, il faut, il faut supporter la faim pour avoir le savoir. Dieu ne donne pas le savoir à quelqu'un qui ne craint pas la faim. C'est Chamoud Bamba qui dit ça dans Kunkatiman. Donc, c'était un problème de manger qui a cause de tout ça. Les élèves, les étudiants euh, euh, n'avaient pas d'argent euh, et, ils voulaient manger. Donc, c'est ça qui a amené le problème. Moi, je crois que même le problème des bourses là, ailleurs, on paye les, on, paye les cours. Mais si aussi, ici, on fait des, on fait des cours gratos et ensuite on a des bourses pour accompagner, je crois que euh, c'est un minimum quand même. C'est un minimum. Je crois qu'il doit y avoir plus de tolérance entre les gens, c'est tout. C'est tout. Plus de tolérance entre les gens, c'est tout.